novembre deux mille dix neuf kenn fayu leen loolu du dëgg du yoon lu ñu mun ci wax loolu du dëgg du yoon depuis novembre deux mille dix neuf maanaam des na ñaari weer ñu ne mat na at yàggul trop ci mbas mi gis ngeen ay artistes xaw ma ay fecckat ñu jox leen cinquante million ñu ne ñoom loolu xet nañ ko te ñoom jox nañ leen cinquante million bu dee ay fecckat ci biir mbas mi ñoo ne cinquante millions xeeb nañ ko kon père ak soutien de famille yii toog ñu toll ci soixante quinze travailleurs depuis bientôt douze mois fayee ko bu ñu kon ñoom lan lañu ñu war a wax. ñu nekk ci société boo xam ne muy société Cheikh Amar mi nga xam ne saay boo ko déggee télé wala rajo mooy maye na cinq millions maye na dix million mayee na vingt millions mayee na oto personnellement xaw ma Cheikh Amar def na accident daaw yàlla na yàlla wëral cëram yëkkati ko ci nu mu gën a gaawee waaye nag waxtaan wax dëgg ci na c'est que def na accident feebar na ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko mu gaaw ko yëkkati delloo ko ci ay liggéeyam waaye defe naa ne liggéeykat yi tamit dañoo accidenté soixante-quinze travailleurs yii dañoo accidente seen waajur accidenté seen doom accidenté seeni soxna accidenté ndax Sénégal boo amul liggéey tekki woo tus boo amul payoor nekkoo dara ay ndaw toll ci seen digg jamono ay retraité sax ñoo leen tane ndaxte retraité sax di nga dem compter tuuti chaque mois wala chaque trois mois ñoom ça fait douze mois dix mois précisément compté wuñu dara jotuñu dara recevoir wuñu dara julli bii passé tabaski bi ñu diggoon leen ne dinañ leen fay 4 mois ba 5 mois tous yéen xam ngeen jullit ak julli xam ngeen jullit ak tabaski père de famille jabar waajur doom julli jot ñëpp di waagante marché di uti soble ak pomme de terre ñëpp di waagante marché di uti xar waa koñ bi ñëw takk seen xar ñii takkuñu xar ren ñii reyuñu xar ren ñii lekkuñu pomme de terre ren ñii lekkuñu soble ren ñii seen doom solul yére seen jabar solul yére seen waajur solul yére ndax lan entreprise ak patron boo xam ne depuis dix mois fayuñu leen loolu ëpp na loolu naxar mënu ko weesu méttit mënu ko weesu lii moo tax ñun waa FRAPP ñu ñëw toggat ak xool naka la ñuy fexee dans les meilleurs délais ñu fomp seen rongañ 2008 la entreprise bi soso lañ ko créé 2008 ak léegi 12 ans benn tenue rek la ñu la leen entreprise bi ma sa jox benn tenue ngeen foog ne loolu dëgg la ci entreprise boo xam ne mu ngi boof ay million ay milliards de phosphate benn tenue depuis 12 ans. maanaam entreprise bi dafa juddu feebar waaye tane woon 2012 ak léegi nag mu mu mu crise feebar bi moo raw corona ñu ngi coow corona corona corona waaye liggéeykat yi li leen dal moo raw corona ah ndaxte corona baa ngi fii ma ñenn yi ñu ngi dund ñu ngi fay luwaas depuis plusieurs mois bailleurs yi ñu ngi leen di togali banque yaa ngi leen di togali ndaxte xam ngeen ne koo xam ne depuis 2008 yaa ngi ci benn entreprise ci diggante bi def nga ay prêt banque yaa ngi leen di tongali convocation commissariat yaa ngi leen di tongali seen dignité bafouée piétinée ba kañ depuis deux 2008 benn tenue entreprise boo xam ne elle est assise cette entreprise de Cheikh Amar sur des millions des milliards en termes de phosphate ñu naan boobu ana état du Sénégal ana état du Sénégal mi nga xam ne moo jox permis Cheikh amaar Cheikh Amar nekk foofu di doxale nii dañoo jàpp ne loolu du dëgg du yoon euh, liggéeykat yi nag mun nañu wax ne depuis 2008 seen droit mosuñu ko respecté waaye ci ndorteel bi comme ni ma ko doon waxee tane woon na sax ndaxte ñu ngi doon fayeeku salaire waaye mosuñu am benn droit benn. liggéey rek liggéey rek luñ leen diggoon yépp balaa ñoo ñëw foofu 2008 liñ leen waxoon yépp dara nekku ci waxoon nañ leen ne waaw bu ngeen demee ci phosphate euh, maanaam ci Matam oto moo leen di yóbbu ngeen liggéey oto moo leen di yóbbu seen kër dara nekku ci dañuy dox jël charrette villageois yi ñoo jël charrette di leen di yóbbu loolu ñaaw na. loolu mënul continuer liggéeykat yi yaakaaroon ne ak président Macky Sall bi ñu fal 2012 seen condition dina changer dara dara dara damay fàttali ne bi ñuy sos entreprise bi bokkoon na ci ñu ne Sénégal dafa war a am autosuffisance en engrais mais bëy euh, mbéy mënul jëm kanam bu fekkee amul yenn jumtuwaay yi te ci jumtuwaay yi engrais ci la bokk. ci jumtuwaay engrais ci la bokk waaw nii la ñu naree am autosuffisance agricole autosuffisance alimentaire autosuffisance en engrais ci noot liggéeykat ci doyadi liggéeykat ci ñàkkal fayda en fait liggéeykat loolu la wax ne euh, mënatul euh, mënatul nekk moo tax ñu ñëw fii tey pour jawtu loolu ñu ñëw fii tey euh, ngir naxarlu loolu wax naa fi sànq ne diggoon nañ leen ne dañ leen di transporter transporter wuñu leen diggoon nañ leen IPM IPM amatul cotisation IPRES amatul cotisation caisse de sécurité sociale amatul waaw loolu lu fa deseti ñun dañoo ne rong ñu baadoole di siim cere buur ñuy jël seen IPM di siim cere Cheikh Amar ñuy jël seen caisse de sécurité sociale di siim cere Cheikh Amar di jël seen salaire di siim cere Cheikh Amar ñuy wax bés bu nekk Cheikh Amar ma na vingt millions dix millions quinze millions trente millions loolu dafa war a doy dafa war a jeex ndaxte golo di bëy baabu dundee nag ah mu ngi commencé bëgg a métti léegi nag wax ji mooy état bi li muy jëriñ waxtaan nañ ak monsieur le maire sottiwul waxtaan nañ ak sous-préfet sottiwul waxtaan nañ ak monsieur le préfet sottiwul waxtaan nañ ak monsieur le gouverneur de Matam sottiwul waxtaan nañ ak inspection du travail sottiwul waxtaan nañ ak médiateur de la république dara sottiwul ñun est-ce que état la ñu am lii mooy état ñun état du Sénégal lan la ñu tanee état Mali bu fekkee amul benn banxaas bu am njariñ amul benn kilifa boo xam ne et askanu Sénégal moo koy fay bu am njëriñ inspection du travail lu muy njëriñ médiateur de la république mu ngi bind rek di transmettre waaye lu muy njëriñ gouverneur préfet ak sous préfet lu ñuy jëriñ daanaka bu yóbboo ñu wax ne tous ah li ñu mun wax daal mooy Cheikh Amar ak ki mbokkam yi nga xam ne ñoo ngànk entreprise bi nee nañ liggéeykat yi fu ngeen dem yéen a xam waaye mënalu leen ñu dara mënalu leen ñu tus léegi nag wax ji mooy ci ban état la ñu nekk ndax dafa am ay citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part ñoo xam ne dañ leen di doyat yi ñàkkal leen fayda noot leen fiir leen paan seen kaw te du mujj fenn ñii dañ leen tooñ fiir leen paan seen kaw te ba léegi fukki weer mujjul fenn ñu ngi interpellé état du Sénégal ñu ngi interpellé ministère des mines ñu ngi interpellé président de la république lii mënatul continuer